mais mais maa ngi rafetlu aussi vraiment le fait que gouvernement bi aussi jël kàddu parce que. Mm-hmm. gannaaw ma nekkee sociologue aussi communicante la. mais communicante sociale expert en communication sociale. Mm-hmm. donc c' est important ñu fédérer citoyens yi autour de ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Mm-hmm. waaw maintenant est-ce que le ton et la tonalité employée. comme même avant le contenu même le ton. parce que la tonalité elle est importante. Mmh. pour que cible bi mën a jàpp. mën a mën a nekk en confiance dès le début. Mmh. tout voilà mmh. après nag ñu doog a segg contenu bi mais contenu bi évidemment euh, on sait que de toute façon. Euh, Il y a la politique des Non, je ne dirais pas ça parce que Fall l'a quand même dit hein, c'était le gouvernement qui s'adressait aux citoyens sénégalais. Mm. Donc ils ont essayé d'apporter euh, des éléments concrets, des mm. éléments explicatifs concrets. Yi nga xam ne euh, par parloo Euh, waru ci war waru ci mën a nekk maintenant moo tax ma ne est-ce que ton bu ñu employé bi c'est adapté à la mm. cible loolu tamit war nañ ko mën a war nañ ko mën a mm-hmm. la cible justement la cible justement ñi nga xam ne ñoom la ñuy waxal nan ba ba perception bi nga xam ne moom la ñu am déjà mm-hmm. euh, suñu relation ñun par rapport ak euh, les politiciens déjà autant qu'ils sont moom cible bi c'est c'est important ki nga c'est exactement ça loolu loolu moo tax ma ne en fait il faut s'adresser aux citoyens et à la citoyenne bien sûr mmh, voilà donc euh, il faut il faut aussi booy booy booy booy délivrer ce ce discours ce message euh, nga xam noo koy waxee foo koy waxee foo koy jàllale ak parce que dafa am ñoo xam ne ñooñu nga ko sekkal mm-hmm. presse bi bu fa nekkee en masse parce que dégg naa premier ministre bi di naan euh, la presse est venue vraiment ba fu ñu nekkoon fi sax dafa xat ça veut dire que vraiment alors la presse avait envie d'avoir voilà d'avoir euh, de vrais messages à transmettre. Mhm. Maintenant, mais euh, au-delà de la presse qui est un médium, mhm. euh, il y a aussi euh, ñi nga xam ne message boobu ñoom la adressé wu mmh. donc euh, on ne s'adresse pas à un peuple en s'adressant seulement à ceux qui font de la politique mhm. on s'adresse à tout le monde si on veut mm. fédérer si on veut fédérer on s'adresse à tout le monde mm-hmm. donc euh, mais c'est un exercice boo xam ne man daal maa ngi koy saluer bu baax parce que c'était important même si par ailleurs peut-être man man kese la aussi ah xaw ma woon ni sax conférence de presse boobu amoon na ñu bëri xamuñu voilà donc ça aussi c'est un problème boo bëggee mm. communiquer boo bëggee communiquer inscrire ko dans une démarche scientifique wala de qualité da ngay wax ni dafa am li ma bëgg a def nga wax kañ la. Mhm. nit ñi xaar ko. Mhm. comme ça après ñu mën a xool. Euh, lan voilà lan la lan lan la lan la jur ko en terme mhm. voilà en terme de changement positif. surtout.